liggéey yoo xam ne ñun dañ ko confié woon yooyu def nañ ko mooy ñu éclairer forage yëpp ne am làmp liggéey boobu fii ñu toll sëriñ bi yegg na entretien bi it am na loo xam ne waa hydraulique ñoo ko waroon def def nañ ko ci forage yi nga xam ne moo nekk ci Touba yëpp liggéey boobu yegg na ñoo waroon également bay fi nga xam ne kuur yi forage yi liggéey boobu tàmbali nañ ko ñoo bëggoon a bàyyi ba mu dox tuuti tàmbali nañ ko jàpp nañ ne féeki fan dana yegg loolu daal mooy li nga xam ne ñun la ñun ñoo ko waroon def ànd ko ak waa hydraulique a waa mairie def nañ